da vous retrouver dans votre programme préféré du week-end Sénégal euh, VSD alors tey nag comme d'habitude ñu fi dalalaat ku nga xamante ni rek bu ñu leen ko dégtalee di ngeen xam ni bu fi teewee war na euh, objectif bi a mën a xuus ci ay perspectives yi nga xamante ni moom mooy suñu ay invité li ñu def nag d'habitude di leen dégtal le portrait de l'invité ngeen gën leen mën a xamle ak moom tey xam naa dañ koy leb rek ba beneen lu ko waral nag mooy yéex a tàmbali bi ci loolee sax ñu ngi bu baax a baax invité mu daal di nuyu ak suñu mbokk euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo safoo programme du Sénégal euh, VSD Aba Mbaye ñu ngi lay nuyu te di am mbégte di la dalal ci euh, fili ci Sénégal 7 rawatina ci Sénégal VSD di am mbégte ñëw effectivement kër gi moom sa kër la. Ah, min nga ko <laughs> boo fi teewee war na. Euh, maintenant nag comme waxtu bi daanaka li ci des moom bëriwul trop trop donc foog ñu gën a xuus bu baax a baax ci. xamante ni moom moo gën a yokk tax ñu dalal la nga bokk je rappelle que euh, membre nga ci taxawu Sénégal mais itam euh, ngay candidat fële ca maire bu Saint-Louis mais ci loolee euh, ñuy tàmm di door suñu émission ak li nga xam moo di actualité actualité bi nag fan yi li ci gën a fës di seen naataango bi di Barthélémy Diaz bi nga xamante ni bañ ko convoqué barki dem moo Ndiaye euh, ngir ma ji euh, ci cour d'appel après ay jàmmaarloo dafa mujjee dox diggante seen partisans yi ak way takk der yi loolee nag nga ko gis sa jàpp nga ni euh, kii di Barthélémy Diaz waroon na war a mën a wuyu ji rek sans pour autant coow li yëpp topp ko a Mbaye na ku nekk xoos boobu. Mhm. tey bu doon am nga dossier bu mel nii ñu toog fan naa fukki la daw. Mhm. Barthélémy Dias compagnie ko tribunal convoqué waat ko convoqué ko mhm. la dernière fois bi ñu ko convoqué. moom mu ngi toog juge bi teg calendrier bi andi ay juge ne ko période bi nga jël yëpp. du ma arrangé. parce que Barthélémy la ko benn formation à l'étranger ba pare teg suñu dem campagne. juge bi ne ko léegi de façon dañuy programmer date bi. et date bi wax naa parti yëpp nañu ñëw

mais finalement ils l'ont condamné à 5 ans. mais ci loolee Aba ah euh, kon da nga jàpp ni waroon nañ ko war a mën a juger ci délai bu raisonnable comme ce fut le cas ak kii di euh, Khalifa Sall. en moins d'un an ils ont bouclé toute la procédure de la phase pré-contentieuse la phase contentieuse la phase post-contentieuse. Mm. tey Barthélémy Dias ça mm-hmm. donc je pense que et puis ñu mais Barthélemy la a raison mënul toog këram dëgg nañu ne encore c'est encore renvoyé au premier amul dara lu koy firndeel ni c'est effectivement renvoyé parce que bu ñu ko convoqué dañ koy une convocation bu këram donc il doit aller répondre aujourd'hui je pense que ce de l'ordre qui doivent comprendre une chose on l'a vu avec Macky Sall l'a vu avec Ousmane Sonko ki bu boo nekkee kilifa nekk un leader d'envergure boo amee lu mel nii natt bu mel nii wala lu mel nii sa ay militants sa ay mbokk sa am di jam donc il est important que par rapport ak fi ñu jaaroon Ousmane Sonko je pense que les forces de l'ordre n'ont pas retenu la leçon il fallait laisser monsieur Barthélémy Dias mu vaquer tranquillement à ses occupations mm. dem fi mu dem répondre à sa convocation ñëwaat mm. à chaque fois que il comme ça si genre situation yi à essayer de tenter quelque ça am ni des problèmes moo fi indi événement mois de mars yi. Mhm. lu mu jur. mais ci loolee sa abaa nag dafa mel ne yéen à chaque fois nag da ngeen di bëgg tout le di natt seen bopp par rapport ak événement ma fi xewoon mars. parce que bu ñu gisee ni bu ñu gisee ni euh, seen leader bu euh, woote li nga xamante ni moom moo di mobilisation tamit tiitaange day juddu. non tiitaange judduwul je pense que mënuñu continuer dans pays là chaque fois que bu élection amee nguur gi mooy tànn ay adversaire am ci élection présidentielle andi seen parrainage si parrainage bi amul benn sénégalais bu la wax ni ko logiciel bi conseil constitutionnel utilisé nii lay fonctionné da ngay jékki-jékki andi sa clé USB ñoo la noo baax na wala baax Macky Sall a choisi ses candidats résultat des courses euh, Madické Niang bàyyi na politique on a vu que le candidat du PUR léegi mu ngi ci mu nguur gi il a fallu que benn problème am dans son parti que ñu xam ne que en fait député et ministre conseil du dem na ci nguur gi Donc c'est Macky qui avait choisi ses candidats. Le seul opposant qu'il y avait, c'était Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on va aux élections locales, on a un parti médias qui est en de tous les sondages, on va maintenant le pousser d'or et choisir ses candidats. C'est quelque chose en donné. Montre que On est en démocratie, on est un pays démocratique et il faut acheter la compétition. La compétition, c'est des compétiteurs, sont des, adversaires, et c'est ça la politique. On ne peut à chaque fois que l'élection a, il y sa à dire problème bi fi mu gën a situé woo mooy sa Barthélemy euh, ngeen bokk nekkandoo taxawu taxawu Sénégal muy candidat comme yow ni nga nekkee candidat mais ci loolu euh, est-ce jàppoo ni ginnaaw ba moom euh, notifié nañ ko ko ni jaratul muy teew cour d'appel bu dawoon coow li yëpp xëy na mun na na toog këram pour mën a éviter li yëpp. Mhm. Mhm. mu ñëw kër Barthélémy Dias ne convoqué naa la. donc Barthélemy Dias bu këram muy dégg sa rajo. kilifa du gàggal di ko si benn. donc këram mooy mu dem wuyu ji bu demee ba wuyu ji notifié kon daal moom moom jotul woon notification. pour bi wane ni dàq nañ procès bi ba le premier décembre. la dernière fois bi ñu ko convoqué moom dafa ñëw euh, tribunal toog ba presque midi kenn woowu ko avocat avocat bi ne ko ah yow de sax tey procès bi kenn programmé ko. Barthélemy Dias ne mënul nekk. bi ñuy jógee moo jàpp bi. ba pare ne ne ñëpp ñëw parce que buñ ñëwee jour boobu dafay dafay def procès parce que ñu jaar ñëw toog ay heure gisul kenn donc kon ko buñ ko ko dëgg bu ko kenn yàpp la prochaine fois bu ñu ko convoqué moom il ne convocation premier décembre moom xamle na ni moom du euh, fas yéene wu caa teew. il faut mu doy kanam il faut mu arrêté kanam du image bu bu rafet suñu justice. xam nga tey on a problème tey suñu justice effectivement on a justice fonctionne boo demee tey jub na am na ay procès et tout mais image justice politique bi ñu teg suñu justice sénégalaise je pense que kenn ku nekk Sénégal war na ko combattre parce que dafay indi crise de confiance en la population justice on ne pas avoir un procès nit nga koy dawloo pendant dix ans nga bàyyi bi mu dëgmal campagne élection locale dans

Je pense que pour la dignité de la République, pour notre démocratie, pour le respect qu'on doit un peu à Barthélémy Diaz parce que amul benn combat pour la démocratie Sénégal bu Barthélémy nekkoon au premier rang il l'a toujours payé par des mois et des mois de prison je pense que il faut arrêter cette histoire là et je pense que arrêter ko mooy ce dossier là nañ ko enterrer une bonne fois pour toutes la la démocratie comme le jeune homme de continuer de am mel ni benn benn épée démocratie boo teg si moom et c'est inhumain. je rappelle que vous suivez votre émission ni moom moo di Abba Mbaye bokk ci taxaw da ko daan léegi sa kàddu nga ni euh, a naka la ñuy war a a rafetale mbir mi euh, ci kaw rafet rafet boobu man fi ma bëgg ñu accentuer débat parce naa ni moo waral xëy na coow li yépp mooy euh, dañoo seetlu ni yéen au niveau de taxawu Sénégal ak tamit ci biir coalition bi di yeewu askan bi comme yéen comme Ousmane Sonko bi nga xam ne a bokk coalition bi tout le temps yéen da di woo nit ñi ci violence Euh, violence bi ñu nemmeeku ko sax ba ki seen euh, sa naataango bi di Barthélémy Diaz ak Sonko gis nañ ba affrontement yi jaxe carrément gis nañu yëkkati